gars bit yu gën musta gis ci wàllu football ay xaañ yoo xam ne gars yi comme leen man li ma leen bëgg leen tey jii nag tombeek li la di àllarba ñaar fukki fan ak euh, juróom-ñaar ci weeru li nga xam ni moo nekk mars mu am solo ci information yi leen di faral di indi ñaanal leen jàmm ñaanal kii di président officiel presque bu kii di Bassirou Diomaye jaxeer fay euh, borom buur borom li nga xam ne mooy njaga ñaaw ñu siyaar ko bégge ko bu baax a baax siyaar leen bégge leen ànd beeg ñun gis nañ ko am na solo yàlla na jëm kanam ci information yu mérite wóor maximum de partage ci vidéo bi beneen bi mooy nga abonné yow mi ko def ba pare leen lay sàkku ci yow mooy nga coppate ndànk zemba zemba bu ko di fàtte lii nag daanaka nekk na lémbu ci ab soog boo xam ne bala ñoo dem ci xibaar yi dëgg day am yenn ruq-ruqaan yu leen di faral di indi yenn saay ndax day doon yoo xam ne ah, daanaka day cuqur mbuuc xaw a neex démb nag ah, kii di Toni Kroos ñu gis ko maanaam ci digg militaire bi Allemagne bi moo li nga xam ni moo euh, nekk Ikeex Gunduwaan mu nekkoon lu euh, rafet nekkoon loo xam ne Dio bu ama am solo la ci militaire ab Allemagne bi teyit ngeen xam ne bu baax a baax yéen merengue yi may seetaan Toni Kroos yéen waaye la beneen bindi waaye Barcelone kon ngeen mën a ànd doon benn nag ndax ñaari supporters yi xam naa ne li ñuy euh, dóorante kon fañ bari na mais nag football moom moo demee noonu il maanaam ñi nga xam ne ñoo for maanaam di mën a régler seen i bagage ak seen i tic-tac ndànk mooy mais loolee euh, du benn dërëm te loolee nag daanaka du dara dañuy dem nag ci match bi nga xam ne Égypte euh, démb gis nañ ni doon na ko football ak équipe bi la nga xam ni moo nekk équipe bi la di euh, euh, équipe bi la di euh, Croatie bu Luka Modrić ma jéggulu gars yi jéggal leen ma lool ndax match ba démb nag dañu gis maam yenn bagage yoo xam ni dafa xaw a sore ak dara ak football waaye nag loolee daanaka Égypte sax mënoon naa ne bu fekkonte ni Sénégal la ñëw foofu di football loolee dana mën a yanu maanaa waaye nag kii di Luka N Modrić di ab militaire croate lu toll ci ay leseer yoo xam ne gars yi xamuñu doye ba nu mu toll maanaam dizaine de lectures yoo xam ne mën naa officiel moom lañ jël diir ko ki nga xam ne moo nekk Luka Modrić diira match bi yëpp. loolee ñi ko def nag xam naa bàyyi wun xel ni moom moomee ña ngi koy yàqal match te it bëggi bëti mag la yor mën naa am bëti fi mu toll nii ak gisam du leer buñ ko defee noonu wute naa gone yi nga xam ne ñoo doon football fi nga xam ne faale wun loolu loolee ñu nekk loo xam ne lu baree bare ñi ngi ko doon ñaawlu Ah, ci li nga xam ne daanaka lenn rek la di ab match amical tey match amical ba ñu war caa jàngat ci grandeur bi équipe bii di ah, Croatie am jóge fële ca dénduk Europe bàyyi fa équipe yu mag ya ñëw fii ci Afrique nag coppati fi li nga xam ne daanaka mooy égyptiens yi ah, pour mën a daje ñoom am match amical kon loolee nekkoon na mbégte nekk tawféex boo xam ne jàppoon naa ne waroon nañ ko mën a teeroo lesandu Real Madrid bi beneen teero boo xam ne budul di ko diir ay laseer yoo xam ne daanaka amul bopp amul ab genn Euh, kii nag di Vinicius Junior ñu xam ni ku mën a tooñ la nag démb match bi nga xam ne daanaka moom la ab équipe bam doon football moog équipe bi li nga xam ni Manes dana wax ni sax maanaam mooy Brésil ak euh, lii di Espagne match ba nag amoon na solo bu baax a baax waaye nag moom euh, dañu ko faa gis moom mii di Vinicius Junior mu nekk koo xam ne daanaka gis nga foofee buuxante bi nga xam ne daan na ko buuxante gonay espagnol yi mu nekk lu doy waar a doy waaye moom moomee sax jàpp na ni sax ginnaaw bu mu coowee ba coow la jeex am na beneen coow boo xam ni dugg nañ ca moom laa bëgg a dugg léegi nii fële ca Bernabéu bi nga xam ni moom jàmm ak salaam la fa waroon a wane coow la du lenn lu dul ah, kii la di Alvaro Morata ngeen gis ko ci image yi. moom Alvaro Morata yow mi ko xamul Juventus la terrain la jóge ñëw foofee ca euh, lile nga xam ne daanaka moo nekk Atlético Madrid moom gore gi nag mi ngi jóge ci Real Madrid doon koo xam ni ku daan football Real Madrid rek waaye boo gisee mu xaw a mere waa Real Madrid mooy daanaka dinaab lim fa ne dem bikki bi dañ ko joxul temps def ko attaquant vedette loole nag bokk na ci li ko naqari moom it mu daal di jël salfaañe boo xam ni dem bàyyi Madrid dem fële ci Juve jóge fa jëm ci Atlético Madrid Real ak euh, Atlético bu ñuy daje ñoog merengo yi day saf sàpp démb nag supporters yi nga xam ne ñoo ñëwoon ca berna Bernabéu daanaka dañu ko doon jël Euh, di ko euh, yuuxoog di ko sànni ay doj ak lépp loo xam ni mën nañ koo def ñoom supporters yi def nañ ko ko waaye nag moom moomee di Alvaro Morata ci image yi ngeen gis ci kaw ma nga yuuxu supporters yi di mer bu baax a baax ci li nga xam ni jàpp na ni loolu àndut ak fair play te nan doxeek moom waru noo doxeek moom waaye coow la nag ka ci dugg mooy moom it gis ngeen ko mu nekk sapeur pompier moom it xam ko ñu dafa mën a ñàngal moom si Junior waaye nag yuuxu na ba sonn wax ak supporters yi nga xam ne daanaka mooy loolee gars yi teg ko moo a calmer euh, fële ca Bernabéu yu bokk ci stade yi nga xam ni moo gën a mag ëpp doole fële ca Espagne loolee gën a nekk loo xam ne luñ mënoon a bàyyi xel la Marotta tamit na gën a defaraat taxawaayam ci li nga xam ne moo digganteem ak merengue yi ndax baatum merengue yi fanu àgg moom moomee baatam àggu fa ndax mën naa dugg ci terrain bi te match bu mu dugg di football ci àdduna wala ngal dana fekk ay merengue yoo xam ne danañ ko mën a sippi ab xeex boo xam ne xeexub yuuxu lay doon kon loolee a baax boo nekkee professionnel soit pili professionnel a nekk professionnel pare yokk nekk professionnel cent pour cent mooy yëppi kasaw-kasaw yi bul ko def yaakaar na foofu mook Vinicius Junior ñoo ca yam jikko te jikko jooju yaakaar naa ni du loo xam ni lu mën a lijjanti la lii xew ci li nga xam ne daanaka mooy wala wàllu football. buñ jógee foofu noonu rek mën nañoo barastiku sax maanaam dem ci Di Maria bit bi nga xam ne ab xaañ la ah, bu mu def ngeen gis ko ci image yi mu nekk xaañ boo xam ni gars yi dégg na jaamu te jaar na yoon moom mii nga xam ne daanaka moo nekk international euh, bi ñuy wax international lii la euh, di euh, Argentine nga xam ne équipe boobee fa la ki ñu naan Lionel André Messi de football xaañ boobee nag neex na moom nag kii Di Maria ñu jàpp ne léegi nag bokk na ci ñi nga xam ni ñoo nekk équipe yi ni joueurs yi nga xam ne ñoo yanu lii la di Argentine loolee jaar yoon tey ñu koy xaaraat moom moomee mu dellusiwaat ci li nga xam ne daanaka mooy équipe mag ya donte nag ma nga fële ca Portugal di football tey mi ngi mi ngi fay def loo xam ni lu am solo la waaye gars yi nag namm nañ ko ci ay Paris Saint-Germain nam ko ci équipe yi di Real Madrid xam naa Real gone yi dañ naa ma noonu bàyyi leen mu dem soxlaatuñ ko moom Angel Di Maria def na carrière nag bu mat sëkk bu mag a mag nag ci équipe bii di Real Madrid yàgg na faa coppate wax dëgg yàlla ay mbégteew yàgg faa def loolu ñu naan football bu ama am solo moom mii di Angel Di Maria kii nag bu ngeen ko gisee ngeen gis ñaari xar kanam yi kanam yi ak président bi nga xam ni moo ko dox ci luq njuur ba indi ko fële nga xam ni moo nekk club bi naan Real Madrid moom andiri mbégte dëgg nag la président bi àndal ah, coppati gone gi nag ci stade boo xam ne wàcc na ko fa mu nekk nag koo xam ne daanaka foofee dañ ko faa dalal ah, bienvenue moom mii di indiri ci li nga xam ne mooy propre stade am la ndax stade boobe bu ànd ak dogalu borom bi dana mel ni mbàccum gerte ci moom match boobee nag Espagne démb ñëwoon nañ ci moom moo doon football ak équipe bi la nga xam ne daanaka moo nekk lii di Brésil match ba mujjee woon ñett ñett ñaar fukki fan ak juróom benn yu tombeeloon ci atum ñaar fukki euh, ñaari junni ak eh, ñaar fukk ak ñeent bu ñu jógee fu loolee duñ jóg ci merengue yi waaye dañuy dem ci ki nga xam ne tamit daanaka moo nekk cubu tooy ci waa mel ni démb ci match bi nga xam ni ah, doon na ko football ab équipe bam di équipe nationale France moom ci waa mel ni nag ñu gis ko ngeen xam ne kii nag wax dëgg yàlla mooy milieu terrain bi di jàmbaari fàkk tëdd ji eh, di football fële ca équipe nationale France di football attaque wala boog milieu terrain démb ñu gis ko nag ci match boobu daanaka jongante na fa wane na boppam moom mii nga xam ne daanaka nag ma ngay football fële ci Real Madrid tey di yaakaar ci milieu terrain euh, bile euh, di euh, bu ki nga xam ni moo nekk Florentino Perez Carlo Ancelotti ak doomam wéy di am ci moom confiance bu baax a baax nu jeexal xibaar te ñaana loolu kii di Edouard Camavinga euh, nga mu ñëwaat ci jàmm ñëwaat ci li nga xam ne daanaka mooy équipe bu Real Madrid ndax blessé ba jàpp na ni sax ñu bari euh, ñu ngi doon xalaat ci information yi am démb naan Manchester City bi du ci bokk waaye nag loolee lépp nag mën naa am mu nekk loo xam ne lu ñu mën a réduire la ba man caa bokk waaye na nañu yoon yàgg ba tey euh, communiqué médical officiel bu Real Madrid génn gul ci surtout club bii di merengue yi su génnee ñu sànni leen ko ci kii Alaaji Malick TV bi jërë ngeen